Euh, Cheikh Sadibou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi di fay. ngay géopolitique euh, ñu waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy actualité d'abord euh, Sénégal daal di nag banque loxoom maanaam féetewul fenn ci résolution gi nga xam ne jël nañ ko ca conseil des droits de l'homme jëm ci suspendre Russie ci conseil googule tey nga jàpp ne lan moo waral tey taxawaayu Sénégal ainsi que yeneen dëkk yi nga xam ne am nañu taxawaay gi. waaw taxawaayu Sénégal dafa di taxawaay bu ñuy rafetlu mais bu ko jëlee de manière générale décision bi assemblée euh, générale des nations unies dafa di décision bu raar parce que dafa si suspendre Russie si conseil des droits de l'homme euh, décision la boo xam ne États-Unis moo ko initié parce que États-Unis dafa ni euh, Russie dafa violer droits de l'homme yi viole droit international humanitaire donc il faut ñu sanctionner ko retirer ko ci conseil des droits de l'homme boobu léegi nag bi ñu gisee loolu sur cent quatre vingt treize pays membres dañoo gis ni quatre vingt treize ñoo voté euh, ci suspension boobu euh, loolu dafa wane ni kon au niveau international ñàkk déggoo am na mm-hmm. ndax euh, gis nañ ni vingt quatre pays voté nañ contre ñu ñu euh, la Russie. Mm. mais nag dañoo gis tamit cinquante huit pays yoo xam ne dañoo abstenir maanaam ñoom dañ ni pratiquement euh, seen yoon nekku si mm. léegi nag euh, Chine dafa bokk si pays yi nga xam ne dañoo voté moom contre parce que dafa ni démarche bi dañu démarche bu yàkkamti la. Mm-hmm. parce que lii day tax conflit bi gën a yàgg conflit bi gën a continuer ndax Russie du dëkk bu ndaw Russie dafa di dëkk boo xam ne am na ay moyens yu xeexam mm-hmm. gis nañ tamit a Kazakhstan ay Iran wala ay Bélarus dëkk yooyu tamit dañoo ni ñoom vraiment du ñu voté contre Russie mais nag dëkk yu mel ni ay Brésil ay Inde ñooñu dañoo abstenir euh, Afrique du Sud moom tamit même chose Sénégal moom dafa jugé ni résolution bi euh, dafa di loo xam ne kenn ko woon euh, jël ay enquêtes yu yu leer amu ci. donc nag si loolu nag la ñu mënee gis ni position bu Sénégal au niveau international ñëpp am na ñu ko salué ñu ndax gis nañ ni position bu responsable la ndax si Sénégal depuis cinq ans ba tey si président Macky Sall dafa yàgg di am position yoo xam ne position yu ñëpp mën a saluer la au niveau international ndax maanaam Sénégal dafa dëkk boo xam ne kenn du ko dicté par rapport ak mu muy ku muy ak kan la war a waxal ak kan la war a topp euh, lijjanti ay relations diplomatiques am malgré que loolu tamit on peut poser débat mm-hmm. mais gis nañ ni daal président Macky Sall en tan que président en exercice de l'Union africaine il a voulu faire montre vraiment de la position euh, vraiment euh, inébranlable du Sénégal par rapport à ce conflit là te position bi mooy ñaari dëkk yu nekk di xeex nañ leen engagé ay pourparlers jéem leen indil jàmm moo gën ñu leen di sanctionné pour te loolu mën na yokk xeex bi mën na gën a guddal xeex bi. Mm-hmm. te loolu boo seetloo Ablaye Wade si tànk yu mag noonu la daan dox. Mm-hmm. parce que bi conflit amee Côte d'Ivoire am conflit bi mu amee Mali fépp da daan dox si tànku jàmm daanul sax xaar. ay conseil de sécurité wala ay union africaine da daan jug doxal si bopp ak tànku jàmm donc mën nañ gis ni président Macky Sall xëy na si ligne boobu la nekk moo tax Sénégal adopté position bu mel noonu malgré que nag euh, conflit bi conflit la boo xam ne moo ngi bëgg yàgg euh, te gis nañ ni perte humaine yi moo ngi yokk ndax dëkk yu mel ni ay mario Mariupol lañ fa rey si ay nit dafa bëri mm-hmm. loolu moo poussé États-Unis ak ay yeneen dëkk yu ne il faut ñu retirer russi ci conseil des droits de l'homme loolu li bi lañ ko mujjee woon def sax mais teewul euh, lenn lañ mën wax daal ci position Sénégal mooy position la boo xam ne position buy engagé responsabilité bu Sénégal au niveau international te position bu responsable la way tey mbaa euh, leneen du ko ci fekk maanaam mbaa yet du ko dal euh, parce que tey. xëy na waaw ñoo ngi xalaat ni leneen mën na ko ci fekk ndax am na ay pays européen yu ni woon sax pays africain bépp bu jug bañ a sanctionné fii nañ nañ la sanctionné. bañ a continuer mhm. ñu coopération ak moom. Mhm. mais nag loolu day wane ni tamit pays africain yi da am nañ seen fulla ak fayda ba parce que am na ay pays africain yoo xam ne nee nañ loolu Europe wax waru wax parce que ñoom du ñoom ñoo leen di sant nan la ñuy doxalee ak Russie wala ak beneen dëkk. Mhm. donc ñoom bu ñuy sanctionné Russie nañ ko sanctionné mais ñoom bu leen arrangé wu du ñu sanctionné Russie dañuy continuer seen coopération économique wala seen coopération militaire wala coopération diplomatique avec la Russie parce que gis ngeen Sénégal. Mhm. gis ngeen bëri yàggul sax ambassadeur Russie beeg bu Ukraine bi daje nañ ci kër kilifa diine euh, Serigne taxa mhm. daje fa sëñ bi ñaanal leen ñaan jàmm dellu si donc loolu day wane ni ñun Sénégal suñu lecture par rapport à ce conflit là mën na nekk lecture boo xam ne lecture bu bu bu rafet la lecture bu nar indi jàmm la diggante ñaari réew yooyu parce que fu demee ba xalif général recevoir ñaari dëkk yi seen ay waxtaan ak ñoom si jàmm ñaari dëkk yooyu yëpp ñëw toog ak seen ay représentants xëy na mën na nekk sax base boo xam ne état du Sénégal mën na ko utiliser. Mhm. pour permettre dëkk yooyu jàmm am fa noonu la ko ay kilifa diine yàgg defee conflit mu mës a am ci àdduna yëpp muy Palestine muy muy Égypte Sinaï ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp dañu gisoon ay kilifa diine Sénégal dañ ci daan jub di dox jàmm ak état du Sénégal. Mhm. donc moo tax ñu ne euh, looloo tax ñu Sénégal position bu responsable la ci am ndax Sénégal moo xam euh, ci euh, nan la war a mën conflit boobu ci ñaari diggante yooyu moo tax nag euh, sanction yooyu yeneen dëkk bëgg jug tekk ci kaw pays africains yi ndax tout simplement ils sont restés neutres dafa di loo xam ne on le déplore au niveau international du lu war du lu rafet te du du àndu na ci sanction yooyu le ñu nemmeekuwaat ci ne euh, Paris ak Berlin ñoom dàq nañu ay diplomate ci mm-hmm. seeni réew ñi nga xam ne Russie la ñu dëkk euh, li ni mal ndax ñoom it teg nañ ko ci yoon waaw li ni mel nag mënuñu ni euh, teguñu ko ci yoon ndax euh, bu ñu gisee conflit déclenché wu fenn dëkk yi li ñuy njëkk def mooy maanaam dañuy teg ay sanctions contre ki nga xam ne moo nekk ni commettre peut-être ay crimes contre l'humanité te boo seetloo occidentaux yi dañu ni Russie moo nekk di commettre ay crimes de guerre ay crimes contre l'humanité en Ukraine hmm. moo tax nag euh, ñii occidentaux yi ni dañuy sanctionner économiquement dañuy exclure seen ay diplomates dañuy jëlee seen ay avoir donc ci sanction yooyu nag gis nañ ni agsi nañ ba si renvoyé ay diplomate russe mais tamit euh, c' est la réponse euh, du berger à la bergère ndax gis nañ ni Russie tamit renvoyé na la ay diplomate américain euh, ay diplomate australien ay diplomate allemand ainsi de suite donc pour wane ni rek dëgg la rafetul ñu doon egg foo pour rompre pratiquement relation diplomatique yi mm-hmm. parce que relation diplomatique yooyu moo doon permettre a am discussion yi am mais actuellement nii fi ñu jëm nii dañ nar a jëm xam ne pratiquement kenn dootul nangu wax ak sa morom malgré que jusqu'à présent il y a des pourparlers entre ukrainiens ak russes mhm. teewul euh, waaw renvoi des diplomates yooyu dafa loo xam ne on le déplore ndax euh, c'est pas souhaitable guerre bu yàgg bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ca Ukraine ak Russie euh, li ni mel ndax arrangé na Russie mi nga xam ne tey nit ñaa ngi koy gën di beddi li ni na nag xëy na mën na bañ a arrangé Russie mais buñ seetee ba seet tamit yàqalu ko dara dëgg la sanction yi métti na Russie eh, gaz ba mu doon jaay Europe ma ngay wàññeeku mais dañoo gis ni Russie ak Chine dafa am beneen politique bu ñu lal ci suuf maanaam dañ nekk di sanctionner le dollar parce que Poutine dafa ne léegi pétrole bi may jaay ak gaz bi jaayatuma ko en dollar dama koy jaay en monnaie russe cest dafa ne dëkk yëpp boo leen bëggee jënd sama pétrole wala sama gaz da ngeen di jëw samay banque jënd sama monnaie ma jaay leen euh, pétrole wala ma jaay leen gaz te loolu gisoon nañ pays yëpp dañoo refusé te fan yii nag gis nañ ay dëkk yu commencé laam-laam ni ñoom dañuy dem def li Poutine wax parce que loolu moo leen arrangé ndax dañoo xam ne Europe dafa dépendre quarante pour cent du gaz plus de quarante pour cent te loolu dafa di loo xam ne du euh, du du nen te américains yi proposé nañ beneen solution maanaam di leen jox gaz naturel liquéfié boo xam ne ci ay bateau lañ koy def indi ko mais boobu dafa cher te dafa méttee defar mm-hmm. donc euh, Russie dëgg la sanction yi dina ko laal mais gis nañ ni tamit Russie dafa am yeneen porte lu ci mel ni Asie gis nañ Nord Stream yi nga xam ne Russie inauguré woon naka mooy Siberian euh, gazoduc boo xam ne euh, Asie a jaar di ravitailler dëkk bu mel ni Chine donc c'est des milliards de mètres cubes gaz vendus vendus à la à la Chine mm-hmm. donc économiquement phénomène bi nga xam ne moo am en en Europe en en Asie nga xam ne Russie dafa marché am lu ci bëri ci marché am déployé ko en Asie loolu arrangé na ko parce que bu ñu jëlee marché asiatique bi rien que Russie rien que Inde ak Chine rek c'est pratiquement presque trois à quatre milliards d'habitants hmm. trois milliards d'habitants je donc marché boobu Russie perte ko marché boobu moo ngi continuer di daw ak ñoom ba tey malgré que échange économique entre Russie ak Inde ba tey def na mais sur le plan de l' nucléaire gis nañ ni échange yu bëri day am ak entre seen biir ak sur le plan de l' Inde moo dàq jënd arme ci àdduna bi tey 40 pour cent arme yi muy jënd yëpp Russie la koy jënde Chine hydrocarbures yi muy jënd yu si bëri da koy jëndee Russie donc dëgg la Russie dinañ ko jéem a mais est ce que di jéem a isolé Russie nekkul tam di isolé monde occidental bi parce que boo seetee sanctions yi. Hmm. boo ñëwee euh, Amérique da nga naan États-Unis moo fa sanctionné Russie ak Canada dëkk bu mel ni Brésil dafa bañ Argentine ñooñu dañoo bañ duñ ko sanctionné nga ñëw Afrique gis ni téralité moo fi nga dem Asie gis ni Japon ak Corée du Sud rek ñoo sanctionné Russie ak ay nga dem euh, fële Pacifique bi la nga ñëw Europe gis ni peut-être majorité bi nañ ko mais dëkk yu bëri dañoo bañ duñu sanctionné Russie nga ñëw ci Moyen-Orient bi ñoom Qatar ah ñëpp bañ duñ ko sanctionné donc pour vous dire tout simplement est-ce que l'Occident nekk beaucoup li isolé boppam par rapport à la à parce que Russie ça ne pas de continuer de faire son commerce au niveau international. Mm. dëgg la sanction yi ko laal parce que marché européen bi tam ko perte mais gis nañ ni dafa mel ne dañoo préparé woon c'est alternative bu yàgg toog di xaar occidentaux yi di xool nan la ñuy jàmmaarloo ñoom ba dañ nekk tamit di redéfinir la nouvelle géopolitique mondiale maanaam géopolitique bi xam ne dootul par rapport à ce qui se passe je veux dire la Russie et la Chine. ñu wax ci euh, leneen élection yi nga xam ne euh, moom lañ jëm ca France premier tour bi muy le 10 muy dimanche bi dibéer gi euh, beneen dimanche bu le quatre dinañu amaat second tour yi tey enjeu yi lan la. mën nañ ni xëy na réélection Macron wala Macron jóge ci nguur gi mooy enjeu yi gën a mag parce que France gis nañ ni crise yu mag moo koy traversé jamono ji génnee ci pandémie euh, Covid bi ak tamit euh, crise économique bi menacé instant yi Europe li tax ma ni pandémie ndax pandémie bi euh, gisoon nañ ni France dañ ko confiné woon. Mm-hmm. te majorité français yi ñoom ñëpp confinement boobu xëy na arrangé woon na leen mais dafa dafa demoon ba da leen metti ba dafa dafa demoon ba leen maanaam si seen dundin mm-hmm. léegi nag ñu jógee ñu ngi génn ci pandémie boobu génn guñ ci sax totalement beneen guerre déclenché wu Europe te guerre boobu dafa indi ay crise gis nañ blé bi dafa yokk pétrole bi dafa yokk litre bu essence France instant yi dafa yokk yokk métti denrées de première nécessité yi yokk donc loolu dañoo gis ni est ce que nar nekk si avantage bu Macron wala war nar na nekk si désavantage am moo tax ñu ne élection présidentielle yi élection à élection yu mag la nar doon ci histoire politique bu France dinañ ci gis tamit ni euh, Emmanuel Macron euh, actuellement ci sondage malgré que moo jiitu ci kanam mais gis nañ ni il est pratiquement talonné par ku mel ni ay Marie Marine Le Pen ak tamit ay ñoom Jean-Luc Mélenchon gis nañ ni ils ont des points favorables par rapport à l'élection présidentielle française mais nag li gën jaaxal nit ñi mooy percée bi Éric Zemmour def ndax Éric ku ko xam-xam ni moom campagne am yëpp da ko basé sur l'immigration dégg nañ fi saaga pratiquement ci kaw Sénégalais di loo xam ne vraiment lu ñuy que yaakaar nañ ni yi nekk euh, daan seen doole moo leen fa yóbbu ak jàng ak wut xam-xam donc du leneen lu leen fa yóbbu donc moom mu taxaw wax ay wax yu ñaaw si sénégalais yi donc dinañ xam na euh, élection yi ñu jëm ndax français yi ils sauront faire le choix par rapport à ce qu'ils les appellent a à l'unité ou à, la division donc moo tax élection présidentielle française yi dafa di élection présidentielle yu nar a histoire politique bu France parce que Emmanuel Macron benn tamit euh, bëgg na am deuxième mandat ndax bëggul mel ni comme prédécesseur am François Hollande bi nga xam ne yàggul ci nguur gi donc loolu yëpp dafa di ay enjeu gis nañ tam extrême droite française récupération politique yi mu nekk di def gis nañ tamit ku mel ni Jean-Luc Mélenchon koo xam ne français yi ñoo koy gën di sympathiser di ko gën di bëgg ndax franc parler bi mu am ndax programme am mu am ci wàllum économie bi mu am ci wàllum relation diplomatique yooyu yëpp loolu tax na ne France seen élection yi nar a nekk élection yoo xam ne élection yu décisive. Mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh Sadibou Ndiaye.